وتقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ay mbokkam ay xaritam ay collaborateur am ak ay militant ñoom ñëpp ngi fi woon ngir delloo jukkal kii fi nekkoon ilimaan jiwriñu Sénégal diggante 2014 jàpp 2019 Mohamed Boun Abdallah Dionne nag gannaaw bu campagne électorale bi jeexee si la wuy ji borom moom di élection boo xam ne moom ci boppam ab candidat la woon. ñoo bokk mën naa wax sixième lycée ba terminal après ñu ñoo am tamit dem jàngi ci euh, bitim réew France ay école d'ingénieur dëgg la woon koo xam ne kii

moom Mohamed Boun Abdallah Dionne nag amoon na juróom benn fukki at ak ñeent ñoomu doon liggéeyandoo nag di xamle ne Sénégal ñàkk na commis de l'État bu mag. doonoon nit ku taxawu Sénégal am taxawaay premier ministre doon ko presque juróomi at liggéey ci liggéey bu rafet doonoon nit euh, citoyen bu bëri yitte. doon nit ku baax nit ku am dal euh, nit ku fonkoon liggéeyam fonk doomu aadama. kenn amul woon ñu koy reproché ñi nga xam ne seen solution nit ku baax nit ku yiw la woon cadre valeureux woon ku amoon na ñëpp jàmm moom mi nekkoon nag ab ingénieur spécialisé ci wàllum économie appliquée ci réewum Sénégal lañ ko tàggat mu dem fale sa France yokk fa xam-xam jotoon na liggéey ci benn compagnie informatique bu nekk foofee sa France laata muy dem ca banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest jege woon lool nag Macky lool sax lool sax. lu nekk ab taalibe murit bu mag Mohamed Boun Abdallah Dionne bindkat la woon moom moo bind téere bi ñuy dippee le lion le papillon et l'abeille bi nga xam ne ci atum 2023 la ñu ko fësal deb téere foo xam ne daal dinay xam le ne dina am ab taxawaay gu am solo si àdduna wërngal këpp ci vingt-et-unième bi le